yëg ko kay yëg ko mais ñun bés bu ne ñaata nit ay dee ci géej gi kenn du ko waxtaane fenn voilà le problème dafa dem ba mel ni lu normal sax mel ni nun ay rabi àll lañu cest à fi nu toll fi nu toll dafa mel ni xamuñu ko je crois que euh, quand des gens la volonté vraiment de te loolu yëpp ci ci rupture yi euh, systémique bi nga xamante ni moom la moom la ñu woote ci la ñu ci la ñu war a jëm. ci ci loolu la ñu absolument gis nañu justement président Bassirou Diomaye Faye doxee tànk yooyu bi mu demee fu mel ni Ghana Nigéria loolu la fa waxtaanee woo njiitu réew yëpp pour que ñu jàpp ci ba ñi nga xam ne ñoo mer génn CEDEAO dellu si ñu doon bloc ban rôle la ci war a joué tey lan la ci war a mun a def moom président Bassirou Diomaye Faye xam euh, nga yaa xaw ma xaw ma kaa kan ma rupture systémique. Khalil. système bi à l'époque suñu camarades yi ak suñu waa ak waa Pastef yi dañ ci daan xuloo ci biir réseaux sociaux yi effectivement yi di leen wax non mais attends yéen it waa Pastef laata ngeen di ñëw gars yi doon nañ fi xeex système ñun man boo nekkee université mm-hmm. Omar Diop Blondin yàlla na ko yàlla yërëm amiin euh, <laughs> dañoo daan wax système système dafa ma romb fa fu ñuy tuddee fu ñu daan fu ñu daan naanee café université ne ma alors ah, de quoi ça ma ne ko ça ne va pas je suis malade mu ne ma c'est système <laughs> boo feebaree sax na c'est le système bi la. Mm. Euh, parce que dafa xóot dafa profond. Mm-hmm. alors euh, euh, ñoom comprendre nañu loolu buñ ci taxawee dina mën a dem cest à taxaw bi mooy xam ne c'est tellement profond que c'est pas une minorité moo ko mën a lijjanti c'est tout voilà mm-hmm. vraiment le peuple mm-hmm. tout entier mooy taxaw euh, lijjanti ko ba pare aussi ñu jàppalante en Afrique mm-hmm. ah oui oui jàppalante en Afrique Absolument. parce que gars yi jaral na leen lu ne donc il faut ñu nit mu jaral ñu lu ne moo tax ta question euh, CEDEAO euh, gis naa ne am na ay problème hein euh, le ministre Diop du Mali affaires étrangères Ablaye Diop euh, même Assimi Goïta mm-hmm. bërki démb Sikasso mm-hmm. ci discours bi mu doon def da ngay gis ne mere nañu CEDEAO mel na ni sax compté tuñu trop. génn nañu mm-hmm. presque. ci ci CEDEAO Euh, position wu président Diomaye fay mooy nañu tëggaat CEDEAO bon euh, fokk ñu ànd mën nañ ko tudde ne bu nu neexee mais fokk ñu ànd mm-hmm. maintenant nag CEDEAO waratul a nekk CEDEAO des états mm-hmm. dafa war a nekk CEDEAO des peuples donc bu nekkee CEDEAO des peuples day nekk CEDEAO sécurité mm-hmm. des peuples Euh, de la de l' Afrique de l'Ouest loolu la war a nekk mm-hmm. si c'est un c'est une CEDEAO euh, des chefs d'État mooy bu la neexee changer constitution euh, mm-hmm. toog fanweeri at bu ñu la daana ñaa coup d'état au palais on bloque on, on blocus ah, on etc etc c'est fini mm. alors tey président Diomaye fay lan nga gis ne euh, euh, ndax ñu ci bëri jox nañ ko bopp wax nañ d'ailleurs ne euh, proposé woon nañ ko sax pour que mu jiite CEDEAO mais il a décliné peut-être pour ses raisons personnelles mais tey Sénégal ak leadership bi mu am moom itam mu nekk ndaw bokk ci la nouvelle génération ban peut-être nouvelle dynamique la mun a impulser au sein de la CEDEAO lan la ñu mun a xaar ci moom comme coppite ci CEDEAO affaire bi du nekk ndaw c'est bien. mais du rekk nekk ndaw hein. Hmm. ah oui mais attends en plus oui. Ah, les les les régimes africains ay ndaw leen yoroon. effectivement Afrique c'était hmm. des jeunes. oui a ci magoon ak Houphouët. Hmm. Senghor 54 ans la am bi muy doon président ah. ñeenti at la magoon Macky Sall. <laughs> Abdou Diouf am 45 ans la am. Diomaye am 44. non. caractère bi ak leadership bi la ñuy soxla. ma ne caractère bi surtout la ñuy gën a soxla ak le leadership. c'est ça c'est-à-dire xam d'abord xam affaire yi. am volonté politique am détermination bi am fayda ji loolu moo ci am solo maintenant c'est vrai que euh, l'avantage de la jeune génération c'est qu'elle n'a elle n'a pas de compte à rendre à li doon li xewoon et elle est décomplexée Abdou te infome la def hmm. bon France du école nationale de la France d'outre-mer. Euh, Ablaye Wade France euh, France et tout ça bon. Mm. Euh, Senghor waxi noppi et cetera bon même ah oui. Mm-hmm. né après les indépendances et cetera mais bon mais donc vous voyez bien. c'est pas une histoire de par contre fii effectivement amuñu boobu. boobu ils n'ont pas de contre à rendre ils n'ont pas de contre à rendre euh, donc Diomaye est à l'aise maintenant il est moi j'ai beaucoup apprécié xam bu fekkoon ne politique avant day daal di jël affaire bi gàllool mm-hmm. ah oui président bi et alors ça fait du tape à l'œil mais ça sert rien d'abord du fa def dara parce que amul boobu jot. mais gars yi faale wuñu sax mu def fa dara ak ñu bañ fa def dara parce que CEDEAO actuellement lu ñuy jariñ. Mm. dama yàlla baax bëriwul de. je ne suis pas pour que ñu kii ko. Euh, voilà mais. taxawaay bi des na quoi ni mu waroon a mel melu ko donc. Euh, bon je trouve quand même qu'ils ont du travail euh, président de la République en tant que tel mais. aussi Ousmane Sonko pas en tant que premier ministre mais en tant que président de PASTEF ouais. leader aussi panafricaniste ah oui parce que là euh, bon je sais je sais qu'il a des euh, relations avec les partis politiques en Afrique etc mm. et tout ça donc il faut un travail mm-hmm. il faut un les militants africains war nañu def un travail d'unification de solidarité entre eux chef d'État yi aussi vraiment euh, jéem a góorgóorlu euh. maintenant dans ce cas précis c'est pas simple ça prendra du temps parce que jomay euh, il vient d'arriver il n'a pas le temps il va leur dire écoutez quand même may leen ma ma <laughs> lijjanti d'abord samay affaire bala mm. may mën a diriger CEDEAO parce que mm. moom diriger CEDEAO warut a bokk ak ni ko ñeneen doon diriger dafa war a wuute. rupture du point de vue du continue et cetera donc je trouve qu'il a raison est c'est une décision sage mais la question elle est continue d'être là comment tey réaliser l'unité des peuples de la sous-région ouest africaine vraiment sur des bases qui nous permettront d'aller très très très vite gis nga les pays de l'AOF e là huit pays yooyu c'était quatre millions huit cent mille ou six cent mille kilomètres carrés ëppe ëppe woon na Inde huit cent mille kilomètres carré Inde c'est un milliard quatre cent millions d'habitants ñun fii matuñu boo balee boo ci AOF lay waxee mhm. ex AOF parce que boo dugalee Nigéria day changer mais pour cent cinquante millions d' ci quatre millions et quelques kilomètres carrés li fi ne ci alal boo boolee Inde ak France ñoo ko leen ëppale ba pare mënunoo añ ba reer ba problème la voilà hmm. alors ñu wax ci li nga xam ne itam ñu ngi koy coow la loi d'amnistie bi nga xam ne président Macky Sall moo ko fi bàyyi euh, de plus en plus ñu ngi dégg ay kilifa di wax ne dañ ci war a dellu dañ ko war a abroger parce que li fi xewoon ñu ngi wax juboo juboo jàmm jàmm mais jàmm ak euh, juboo mënta am feek justice amul est-ce que da nga bokk ci ñi gëm ne justement loi si boobu dañ ko war a abroger